non mais de toute façon euh, Adja tey euh, liggéey bu ñu def euh, ci continent bi c'est-à-dire dem ba nekk champion ba pare non seulement nekk champion mais pour man écraser catégorie bi écraser catégorie bi mooy 14 buts 0 encaissé jël meilleur joueur jël meilleur gardien pour man su amoon trophée aussi meilleure défence dañ koy jël lépp lu am ci trophée jël nañ ko tey soo demee coupe du monde ñu ngi passé beneen cap ñu ngi ñu ngi dugaat ci beneen niveau euh, niveau coupe du monde du du niveau coupe d'Afrique war war nañ ko xam euh, tey objectif bi mooy déjà nañu nekk ak na nañu liggéey ak xel nañu liggéey ak xel ak euh, nañu liggéey lu ma waxoon léegi tout à l'heure mooy ak projection maanaam commencer jël ay ay matukaay pour ñu xam ne que aussi Euh, compétition bi waruñu dem ne ñun on est champion d'Afrique lii la ñuy def dañuy ñëw écraser compétition bi dañ ko dañ ko war a euh, utiliser dañ ko war a def avec intelligence jël d'abord euh, benn objectif c'est-à-dire objectif dañ koy jël par inter intermittent c'est-à-dire ay objectifs intermédiaires la ñuy wax c'est-à-dire gagner d'abord premier match bi passé premier tour bi ba pare soo passé premier tour bi commencé am ay yeneen euh, objectif ba pare am na leneen lu lu important aussi mooy euh, euh, li li war a am diggante coupe d'Afrique coupe d'Afrique bi ak coupe du monde. et au mois de juin oui. voilà am na am na am na lu bëri mooy forme joueurs yi mooy blessure mooy lu lu am na lu bëri moo loo ko aussi dañ koy war a liggéey c'est-à-dire tey groupe bi mu ngi fii. profondeur de bon Malick Daf am na ko gis nañ ko ci ci ci compétition bi quel que soit joueur bu muy digga système bi c'est toujours la, la même chose gisuñu différence euh, kii kii dugg kii génn gisuñu ko gisuñu différence ci euh, rendu équipe bi donc aujourd'hui aussi il faut continuer à prospecter c'est-à-dire poste bu nekk au moins dañu danga nga war a am au moins deux maximum trois joueurs minimum pardon trois joueurs ci poste bu nekk parce que d'ici mois de juin on peut pas savoir aujourd'hui ce qui ce qui peut se passer. donc liggéey bi yëpp loolu foofu lañ ko war a def. d'accord.